سفر هماني على ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني على ماهن ما الأبس والسفر صلاة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 ahousubillah bisimillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabii wala di abdillahi habli yaa wahaabu doona anan wal takfini bi rasulillahi kulla bala sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan seen télévision Futurs Médias fu ngeen mën a nekk ci àddina bi ñi ngi amaan mbégte lool nekk fii ci Touba Daarul naan ngir fàttali ngir yaatal woote bi nga xam ni moom la Cheikhul Khadim sunu yaakaar tey ak ëllëg woote ci ñu santale ko yàlla ci bés bii nga xam ni mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar woote boobu nga xam ni mbooleem ñi ko wuutu woon dañ ko daan yeesal saa su nekk noonu la ko kii fi nekk tey jii cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu seex Mouhamad Bachir noonu la ko wootee bëgg jullit yëpp ànd ceeg moom rawatina taalibi cheikhul xadim yi muy bésu cant muy bésu mbégte bés boo xam ni sëriñ bi ci boppam moo ko tuddee woon ak màggal. ñu ñaanal sëriñ bi nag bu baax a baax gannaaw bi ñu ko nuyoo ziyaare ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mucc ak njaboot cheikhul xadim yëpp rawatina ay jëwliñam cheikh Sidil Muxtaar ibnu Sëriñ Tuubaa cheikh Abdoul Ahad ñaanal bu baax itam seen ndaw li nga xam ni moom la ñu teg liggéey bu mag bii ci loxoom mu di cheikh Mohamad Bachir yor kàddu yoonu murit cheikh Mohamad Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir ñaan sunu borom yokkate musal ko yii ñuy def yëpp ci waajtaay wi ci ndigalam la ak comité organisation bi nga xam ni moom la ànd liggéey bi coordonnateur sëriñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma ak rakkam ji nga xam ni mooy sëriñ cheikh Abdoul jiite commission bi nga xam ni. moom mooy saytu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ziar mbokk jullit yëpp fu ñu fi mën a nekk ndax sëriñ bi jullit yëpp ko taxoon a jóg ndax moom dafa wuutu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na bés bi bésu jullit yëpp la moo tax mu daan wax naan koo xam ni sama mbég sa mbég la nag ma ci santale yàlla ndax liñ ci sunu borom defal lottu nañ ci sunu jëmm ji kese ñu sant ko ci kon bésub cant la goo xam ni waxtaan yi ñuy def yëpp dañ ko koy waajale ak di fàttali nit ñi. ñu amaan mbégte nag mbégte mu kawe boo xam ni naka jekk lu ëpp mën naa ni sax ëpp na ñaar fukki at ñuy faral di am jataay yu mel nii mu di maam Cheikh Ibrahima Fall làmp mu sëñ Omar di doomu dëkk bi di jàmbaar boroom xam-xam ñu bokkaat leneen loo xam ne duñ ko séddoo mukk muy Cheikh Abdoul Khadir ñi ngi ziar bu baax sëriñ Cheikh ibnu Cheikh Abdoul Khadir sëñ làmp ñu war waxtaane waxtaanee yitte. arab di ko wax himma muy loo xam ni lu sëriñ bi am rek wax nañ ni itteem gu kawe googu moo ko may lii moo ko yóbbu fii nga xam ni fi la ay mbiram yegg tey ñu jox la nga nuyoo te tàmbali ci loolu nga xam ni mooy yitte ba sëriñ bi fii mu ci yegg si tey jii ak ñim ci waajal liñ ci jot a def incha allah. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jërëjëf Cheikh Abdoul Khadir ginnaaw bu nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ca ndawam lu tedd la Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu di yeesal sunu jaayante ci Maulana ci Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ardaahu di la nuyu bu baax ngay sunu wóllëre di sunu xarit lii nuy def nu yàgg koo ànd ci at yu bari ci ginnaaw yàlla na gën a jëm kanam ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Cheikh mun Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér Mbàkke ba lim yéene liggéeyal maamam mu defe ko nam ko bëggee ak mbooleem ñi nga xam ne euh, ñu ngi doxal liggéey bu màgg bi jëm ci bis bu tedd bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mm. nga xam ne bu woon ak dem gi nun dara du nu jar. Mhm. màggal gi rek tax nun nu dinu màggal. Mhm. kon Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mbakke mi nga xam ne. Mhm. moo jiite lii di ko def defin wu rafet. ànd ceeg Serigne Cheikh Abdou Mbacke. moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. ak Serigne Ousmane. yàlla na leen yàlla sàmm. te taxawu leen ndax. indi nañ ci liggéey bu bees bu am solo boo xam ne. munu ci war na ñàkk. kon ñoom jërëjëf. sëñ jili nga laaj laaj bu am solo. Mm-hmm. muy Cheikh Ahmadou Bamba ak himma muy yitte. Mm-hmm. Uh, damay faral di wax ne yitteem ju landi ju mag jooju. Mm-hmm. daf ko judduwaale. Uh, sëñ Moussa Ka daf ko wax ne ko uh, maqaamam junne yi déeg booti tey fóor. ci raw nga ko làqoon te taxti la fuur. mooy masta feeñ. daf koo ngoor rek ne tekk. mooy du fuur. waaw ndax te booba ji ngi waaw sëñ Malick Dieng. Mm-hmm. ba muy martial sëñ Basiru mm-hmm. dafa wax ne loo gën a nëx mm-hmm. muy gën a teey loo gën a nëx buy lijjanti mbir moom loo gën a nëx muy gën a teey waaye sëriñ bi it euh, bi muy làq maqaama yooyu ci rawam daf ko judduwaale damay wax ne mbooleem luñ na lu baax la te gën sëriñ bi jëf na ko sëriñ bi wax na ko sëriñ bi bind na ko nga xam ne maanaam yitteem jooju da koo judduwaale. Mhm. Euh, sëñ Tuubaa sëñ Jili dafa bokk ci ñi weddi njariñ loo fekk. Mhm. xam nga wolof day faral di wax baat boo xam ne. baat bu baat bu bu bu ñàkk personnalité la. mooy njariñ loo fekke mhm. képp koo xam ne da nga gëm njariñ loo fekke doo bàyyi mukk saw askan aw tàgg ëllëg. ndax njariñ loo fekke mooy. lii may def daal na sotti ma jëfandikoo ko mbaa ma bàyyi ko. mooy ku gëm njariñ loo fekk. Mm-hmm. waaye ku mel na Cheikh Ahmadou Bamba. nit ki tasawuf dañuy gëm li ñu tuddee xidma. Mm-hmm. mooy naa def lu rëy loo xam ne man mi koy def du ma ko fekk. Mm-hmm. xam nga wolof day faral di wax ne. bëri nag kuy lekk mburu naa mburu me neex. te fi mburu mi jaar ba neex yow boo fa jaaroon neex. bëri waa na ku gis woo or. ci biir mu rafet ba nga at jël ay millions di ko jënd mm-hmm. fekk fañ jaarale or ba ci lakk ko mm-hmm. ak tàpp ko ak xacc ko mm-hmm. yow sax boo fa jaaroon da nga rafet sëriñ bi nag ne naa jaar foofu fépp man dem déyaaleeg sama borom yeen nit ñi sag bi tubaab yi loolu dañ koo gëm te duñ ay jullit boo demee France dañ naan la aéroport bi ñu ngi ko tuddee Charles de Gaulle nga dem nga dem Amérique ñu ne la zone Kennedy parce que nga dem Italie ñu ne la ku mel ne Garibaldi ak yeneen ak mhm. parce que dañ doon xeexal seen réew mhm. ngir bëgg ndam li bu ñëwee ñoom du leen fi fekk mhm. waaye seen waa seen waa réew danañ ko jariñoo kon képp kuy gëm njariñ loo fekk Sëñ Tuubaa weddi na la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne te dañ da ngaa ne ci sukuraat wala ñu ne suba la adduna di tukki nga yor jiwu tàndarma ji ko te tàndarma ku nekk xam na ne dina def lu mat ans wala 20 ans waa yow miñ na nag bu la leeroon ne da ngaa ne ci sukuraat hmm. te nga yor jiwu tàndarma ji ko war ngaa xam ne tàndarma ji ngay jëfandikoo tey ña ko jiwoon dee nañ hmm. kon képp ku gëm njariñ loo fekk sëñ Tuubaa wi dina la hmm. kon dama lay wax ne la yitteem ju mag jooju daf koo judduwaale bi mu ganee jamono gane jamono foo xam ne yitte dana fa yomb ndax ku nekk xam ne na ne Sëriñ Mor Anta Sali mi doon way juram université la yoroon boo xam ne réew mii. Hmm. ñëpp a fa doon dem di jàng. Hmm. fànn xam-xam yëpp fànn xam-xam yëpp sëriñ bi bi muy bi muy reprendre. Hmm. mawaahibul xudduus. nga xam ne umul baraahin la ci way. reprendre mu lay nu su dóor muy bidaayatul hidaaya bu imaam Xasaali boobu mu ngi ci biir daaraam sëriñ waajuram sëriñ Mor Anta Sali te xamal ne te xamal ne sëriñ Mor Anta Sali mu ngi génn àdduna mille trois cent mille trois cent mille cent nag boo ko xoolee Serigne Touba gi gane jamono mille deux cent soixante dix. Hmm. muy Ama Saran. Hmm. muy cent soixante dix. boo ko moyee ci mille trois cent trente képp la la jox. Hmm. waaye loolu mooy ci gàddaay gi atum gàddaay gi. muy mille deux cent soixante dix. ba mille cent. nga moye ko ci. mu jox la trente ans muy fanweeri at képp. Mm-hmm. kon xamal ne téere yii bi mu koy bind. Mm-hmm. aljawharu nafis. Mm-hmm. mawahibul qudus. bidayatul hidaaya boobu mu reprendre muy téereb imam Xasali. tuddee ko mu lay nu sudóor. booba kon sëñ bi ñaata at la am. mu ngi toll ci ay fukki at juróom-benn. jëm fukki at ak juróom-ñaar. ba Serigne Touba ja Mame Mor Anta Sali jàngal ko yenn ci ay doomam. Serigne Afia ak Serigne Cheikh Thioro. ngir. xaalima jaxate kala mim daan bind di ko yët mm-hmm. naa ko deema toppal yitteem ju kawe jooju mm-hmm. dafa mujj xaadi ne ko boo bindatee deel andi ma di ko mokkal xaadi daa mujj ne ko anta kuntu ibnan mm-hmm. fa sirtu aban anta kuntu tilmisan fa sirtu say xam démb de bàyyi laa woon ci <laughs> sama baay démb de ab élève nga woon ma di la jàngal tey yaay suñu professeur yaa nuy jàngal ñun ñëpp sëriñ bi tudd sëriñ bu mag bi ci fukki at ak juróom-ñaar ngir yitte ju mag ñu bari ci daara ji taamu mu jàngal leen ndax làmmiñam wu gën a leer. Mhm. xam nga Mamadou na Sali dafa xawoon a dëtam tuuti. Mhm. te sëriñ bi bu la jàngalee da koy dégg. Mhm. te sëriñ bi ma Mouhamadou Lamine Diop daga ne nee na ci Irwa u Nadim. Mamadou Anta Sali daan na ko jàngal bind boo xam ne àgg gu ci war koo jàng waaye daf ko war a jàngal ñi fi jàng si suba. daf ko war a jàngal ñi fi jàng si suba. ngir yitteem ju kawe. yitteem jooju mu judduwaale nag. Mamadou na Sali génn àdduna. ci mille huit cent quatre vingt. xam nga dama ne la mille huit mille trois cent ah, trente. Mhm. mille mhm. moo tolloo gàddaay mhm. di moom mu gane àdduna ci mille deux cent soixante dix muy ama saran te sëriñ bi léppam yàlla daf koy danoo si ci alxuraan. saran lakku mina diin. maa wasa bihi noohan wala si aw xëy naa ah, lakku mina diin. maa wasa bihi maa noohan wala si aw xëy ilayka. wa maa wasa naa bihi Ibrahima. wa Moussa. wa isa an aqimu diin wala tatafarraqu fii hmm. saran la gane àdduna muy mille deux cent soixante-dix yàlla di danoncé naan yéen diine jii kat yow yonent bi ma la wàcceel jox la ko nga war koo leeral hmm. kon li ma la li ma la jox mooy la ma joxoon Nuux mooy la ma joxoon Isa mooy la ma joxoon Muusa kon na ngeen maanaam yéen ñëpp mooy ci diine ji te bu leen teqalikoo hmm. an aqimu diin wala tatafarraqu fii xoolal Sëñ Tuubaa kon bu gane jamono ci ama saran saraxa lakum mina diin ñëw ci alxuraan di ko danoose hmm. kon xam nga ne léppam ay kawtif la hmm. waaye xoolal boobu mu doonee gone hmm. reprendre téere yooyu aw waajuram ci njàngale mi am al iradatu qawiya muy décision ferme li sëñ Muntaxa naan ku dem ma dem ku demul ma dem da ko doon ci maam Cheikh Ahmadou Bamba te téere yi doguma la sëñ Lamp li lii gën a yéeme dafa yu ci ëpp dafa nekkoon ay wesar naqadi woon mokkal. gudd sëñ bi waaw sëñ bi def ko ay way day neex a mokkal. maanaam rajas ko waaw ba noppi nga gën koo mën a gën koo mën a dégg ba noppi mm. neex a mokkal. neex a mokkal waaw. te boobu bi koy def dama la wax ne la amagul fanweeri at. Mm. Mm. bi Mamadou Sy li génn àdduna ci 1880. mu toog atum yàlla mooy at mi mu njëkkee dem gànnaar. Mm-hmm. te dama la wax ne laata muy dem gànnaar. reprendre na téere yi comme comme les certains auteurs. wax na bi muy dem gànnaar dafa demoon jàngi. loolu kon téereem yi mu bind doog a dem. gànnaar wedd na loolu loolu. yi mu bind. Mm-hmm. doog dem dem gànnaar dañoo wax dafa am ku bind tuumaal sëriñ bi ne. Hmm. bi muy dem gànnaar dafa demoon foofa pour dégg arab hmm. te dama la wax ne la <laughs> Mawahibul Qudus ci wàllu tawhid mooy téere boo xam ne maanaam am na sama benn professeur bu ñuy wax Serigne Xaban Dem hmm. nee na tuubal na ci ñaari nit ci université ba nekk ca ca ca Venezia ndeysaan la ca Italie ca Italie te téere bi rek lay traduire tubaab yi dootuñu mën a xam fenn fu ñuy jaar pour mën a weddi yàlla ñu gëm yàlla téere boobu bi ko sëriñ bi def demagul di gànnaar dem gànnaar mu njëkk googu muy 1880 bi Maamor Anta Sali génne adduna mhm. maanaam def na ci àll bi lu mat juróom-ñetti weer mhm. maanaam boo globale lépp daal mhm. ci 1302 yoor yoorub ajjuma ci la taxaw wax ne yonent bi tuñante na ak man saafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi daar si faxat wa rabba ba wahidin minhum bi ma bi ma yonent bi ñente na maak man ne naa yar ñi ànd ak man hmm. ci yitte képp koo xam ne njàngum kese ñu bari dañuy wax ne sëñ bi dafa bàyyi jàngale hmm. sëñ Tuubaa masta bàyyi jàngale hmm, dafa wax ne képp koo xam ne njàngum kese kese kese moo la fi indi man ngaa dem wuti foo ko mën amee yeewi naa la man ngeen baax rek laa bëgg fu ngeen baaxee baax la ndax am marché boo ci gënee marchandise doo bañ ko falal fu waay mën a wutee ji xam-xam ci biir réew mi te man koo am man Ahmadou yebal naa la nga dem fa. Mm. xam-xamu kese daal ku mu fi indi woon demal. Mm. waaye képp koo xam ne. Mm. li ma bëgg. bëgg nga ko moom nga bëgg. fa ma jëm bëgg nga ñu ànd dem fa. ñëwal ñu ànd dox. Mm-hmm. Cheikh Mahamad Lamine Diop daga ne nee na ñu bëri dem. ñu néew des. Mm-hmm. ñu néew ñooñu des nag. la tàggat ci yitte. Mm-hmm. di jiite si kar si. di leen xiifal. daana xëy woo mag ñi kenn ku ne mu enquête la bi nga xëyeeg léegi ñaata baat nga fi wax. nga ne ko wax naa nangam ak nangam ak nangam ak nangam ba eggal. Mhm. mu génn sikar teg nee. Mhm. génne la ca istixfaar teg nee. Mhm. génne la ca salaatu ala nabi teg nee. génne la ca jàng xasida teg nee. ne la lii nga ci dolli nag moom bu ëllëgee na néew. ya ca dolli tadu yooyu bu ëllëgee na néew. nga xam ne day defar seen xool génn ci rëy. génn ci kiñaan. génn ci njistal. tarbiya leen génn ci bëgg adduna. yaa ngi dégg génn ci nay. defar leen ba nga xam ne. lii sëriñ bi waxoon ci xoqa mhm. na arkaanu bayti jamihal qawm arbaxati mhm. bihaa yu xassasu bunyaanul wilayaat dafa am luy fondi ak wilaya mhm. muy sumtun wa tawiilun baxdahu saharun wa mooy noppi ci lépp loolu amul njariñ ab murit du bëri du bëri wax ab murit lu muy wax wax ju am njariñ la war li xew léegi ku nay wax murit xamu ko murit jëf lañ ko gën a xamee ci wax mhm. kon dangay noppi mhm. ba lu am njariñ wax ñëw nga wax ko te noppi mhm. man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut waxal lu am njariñ te noppi mbaa nga noppi sa amut waxal waxal lu baax rek te noppi wujuhun wajuhun tawilun da ngay xiif xiif bu gudd ndax dafa waxoon ne saytaane liñ koy xeexe mooy mooy xiif. Mhm. ak jàng alxuraan. Mhm. yaa ngi dégg ak tudd yàlla loolu la ñuy xeex euh, saytaane ak dem ci jàkk. Mhm. ngay xiif ndax yonent bi dafa waxoon ne yaa maxsara sababi. man istata minkumul baata falyatazawaj fa innahu aqadu lil basari wa axsanu lil farji fa in lam yastati fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wijaahun ay qaatuhin li sahawa yonent bi nee na yéen waxambaane yi digal naa leen ku ci mat a soxna na nga ko denc. ku mat a denc soxna te amoo loo ko denc digal naa la ngay woor. woor googu nag mooy dox sa digganteeg damm bànneex yi mhm. yi nga xam ne mooy jóg ci nit ba muy yëg bànneex boo dee xiif yooyu day dam mhm. muy xiifal mag ñi mhm. dégg nga maanaam xiif bu gudd ba noppi ñuy beru nag beru wa xuslatul ba noppi nag ñuy foog foog mooy lan bu ñëpp réeree tëdd ñu reer tàmbalee naa fi wa mina layli fatahajjat bihi naafilatan maanaam bu guddi gi xaajee ñoom dañuy jug mm. kaanu isa laylu arqa sitara sa halakin mm. xaamoo siraan li ihya iddu jonaati ñooña lu mu leen di jural fa hayizuma barazat mm. layla bi bahjatiha an atta walaw ilal mawla bi taaxati fàtte nañu adduna fàtte ñooñ adduna fàtte salma fàtte wurus fàtte ñoom ñëpp jëm seen borom mm-hmm. boo leen dóoree duñ fayu tàmmal leen liggéey mm-hmm. moom sa bopp di ñàq mm-hmm. di jariñu xam nga sëñ jiili sëñ na ku ko bëgg da ngay nangoo jaamu yàlla. adduna mhm. ku ko bëgg dangay ngay liggéey. Mhm. liggéey lay may daraja moo lay may paal. Mhm. mooy tax nga romb ab kuréel ñu may la paal. boo dee liggéey da ngay am ngor am jom. boo liggéeyut doo toog doo noppi te doo am jom doo am ngor. te li ngay amit doo ci mën a sarxe doo ci mën a maye. tax mënul dara. bu dee da def loo xam ne léwut ba di ca ba di ko am. moo tax sëñ bi ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xëyri waxami fàkk lu leew la jàngaloon yi fi nekk tarbiya ci maam Cheikh Anta. Mhm. tarbiya ci sëñ Massamba Diop Samb. tarbiya ci sëñ Afia. Mhm. tarbiya ci sëñ Massamba. Mhm. maam Thierno noonu. Cheikh Issa Dieng noonu. yaa ngi dégg sëñ Mbacke Bousso noonu. Cheikh Mbacke Bousso dafa wax ne. moom de huwal xawsu. wal miqyaasu. raba qulubana waaj saamana fal kullu saafin wa naimu daf noo yar bañ ba ñu yaru mu defar suñu jëm mu defar suñu xol ba mbooleem lu yàq nit ci adduna denc ci ñun mm-hmm. dañu nangoo liggéey ba moom suñ bopp mm-hmm. ba kenn du ñu mën a ger kenn du ñu mën a jënd mm-hmm. yitte dañu nangoo liggéey sëñ bu Diop saam dem daaru saam toj ko di bay di yóbbu àjjana di yóbbu addiya ndax sëriñ bi ne woon na ko damsal laa damsal mooy biteel bu mag bu may buy denc diw mu ne ko fas yéene na maa doon lantinoor. Mhm. lantinoor du téye diw. lantinoor du téye diw. waaye la koy may mu mën a mayee di yóbbu addiya. Mhm. mooy toj àll bi dugg fa di bay. Mhm. di jàngale di jàng. Cheikh Issa Dieng dem Dieng la gan def noonu. wallaay maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall dem Touba Fall dem feneen. wallaay ah dem Ndande. dem Ndande toj àll bi dem Ndar. sëñ Mandoumbe nag moom waxi noppi. àll bépp bay na ko. wallaay bi sëriñ bi lim ci géej lépp. sëriñ bi da ko ne mm. bu ñu buun mm. maam Cerno la ko wax bu ñu saalañ te maam eh, sëñ Mandumbe nee na mm. li njabootug sëriñ Tuubaa gi di dunde dara lu lewet di du ci ne lii may ji bu ci dara lu lewet di nekk yàlla na seey na xorom mm-hmm. kon bu ñu demee ba jamono ji murid yi war nañoo andiwaat yitte mm-hmm. sëñ Tuubaa dem na ci géej gi ba ñëw amul juróom fukki at mm-hmm. sëñ jili loolu lu garaaw lu yéeme la dem ci géej gi ba ñëw amul cinquante ans xamal ne bi muy gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii ci Daaru daf ko ne sa ñeen fukki at. des na ñetti weer manqué na ñetti weer. waaye bis ni ki tey. sa yitte tax na may indil la garaatu xutbu li ñu tuddee al iradatu qawiya hmm. sa décision ferme dina tax ma tëbal la ñetti weer yooyu tey ñu jox la garaatu xutbaan yëpp maanaam hmm. def la xutbu zaman hmm. sëñ bi ne ko loolu rafet na neex na. sant naa la ci waaye xoolal yitte ji. sama jis jël na loolu. sama gis. sama gis gi mu ne ko sa gis lu mu mu ne ko bokk ci gaa yi di ànd ak yow bañ a tàggatoo ak yow basarnillahu bi anni waahidun hmm. min ahli badrin xaafa minil jaay yàlla bégale na ma ne ma yow kenn nga ci ahlu badrin te loolu rek la bëggoon hmm. basarnillahu bi anni hmm. waahidun min ahli badrin mosoo koo dégg badar jeex na kenn mënatu am seeni garab <laughs> waaye yàlla boole na ko ci ndax yitteem waaye xoolal bi mu sancee Mbàkke Baari def fa ñetti weer sëñ Moussa Ka nee na Bamba daal di sanc Baari di dugg xalwatu di ñaanil bahari kon mm. xamoon na ne day dem ci géej gi mm-hmm. waaye ñetti weer yooyee mu complété ñeent fukki at yi mm-hmm. kon sëñ bi ci 40 ans dem ci géej mm-hmm. dem ci géej gi dafa juróom ñetti at yu manqué tuuti 50 ans yu manqué te laata muy dem ci géej gi mag ñu baax ñi nga fiy dégg ñëpp. Mm-hmm. seexal na leen. Mm-hmm. yeewi leen. wallaay Cheikh Ibrahima Fall. dem ndar dem ndar. wallaay te ji gaañ jëloon sëñ Masamba Diop Samb sëñ Daaru Assane Ndiaye. Mm-hmm. sëñ euh, sëñ euh, sëñ Dame Abdourahmane Lo. wallaay yitte jooju mu leen bàyyee yar leen ci. moo tax sëñ bi dem ci géej gi def fa juróom-ñetti at. bi mu fekk njabootam gépp moo ko sëñ bi dem ci géej gi dem juróom def juróom-ñetti at mm. kenn xiiful kenn marut sëñ man lumbe di sëñ bi dem dem ci géej gi def juróom-ñetti at mm-hmm. sëñ Mbàkke Bousso ne leen xam-xam a ngi ni lu waay bëgg rek ñëw mi raas lu waay bëgg ñëwal ma jàngal la maam Cerno toog fee yar ne sama jàkk ku amul njàpp loo ci dugg te boobu ndox jafe lool ba noppi nag dimbale gouvernement français ci boobu jamono mm-hmm. ci dund mm-hmm. dëkk bi yëpp amuñu lu ñu lekk wala loolu murit yi léegi yi nga xam ne dañoo bëgg jël léegi wax ju amul benn njariñ di tontonteeg koo xam ne jëmul fenn mhm. man dama bëgg nit bu la tooñee ci xam-xam nga fayu ci xam-xam mhm. waaye nag koo xam ne maanaam saaga rek ci la lay woo bu ko ci fekk si kuy saaga rek kooku sëñ Tuubaa du moroomam ñi ànd ak ci Tuubaa du moroomam sëriñ bit ku ko tooñ ci xam-xam dangay ngay woo ku mel ne sëñ Busra Samb mhm. wala nga woo ku mel ne euh, sëñ Bàkk Abdourahmane wala nga woo ku mel ne gaa yu baax yooyu ñu tontu ko ci xam-xam ci yar ak teggin waaye duñ saaga waaye nag ñiy saaga nag dañ leen di bàyyi ak sëriñ bi sëriñ bi moom xam na ni muy def ñi saan mm-hmm. ndax xultu wa ayaami isdarat umuusi mm-hmm. wa fustu bil xaamuusi fil xaamuusi sëriñ bi yitteem ju mag jooju nga xam ne mm-hmm. dem na ci géej gi ba ñëw amul ñi amul juróom fukki at yitte jooju murid yi war nañ cee jàng ndax bi muy sant Seex Isaa Jenn jumaay njëriñ ji xam nga ne loolu lu ko gën a garaaw ci jooju jamono amul fenn. ñu teg xeer wi 1918. 18 lañ teg xeer wi. Mhm. te booba ñu ngi génn ci deux première guerre mondiale. 14 la woon jëm 18 waaw waaw crise mondiale am muy crise mondiale guerre mondiale. ba pare lu mel ni lii xew ci jamono it am. épidémie bi am épidémie bi ah, wax fièvre espagnole. wallaay ndeysaan ci di ku ñu mës a dal dañuy lakk seen kër. ba ci njaarim boobu dañuy lakk kër yëpp. wallaay waxal ci sa. waxal ah, ah. sa kii bi te nit ñaa ngi jeex. waxal ci mbas mi sa nit ñaa ngi jeex dama bàyyi ba yàlla def li mu war a def. ba noppi wallaay wallaay ndeysaan. waaw ñoom lu yàlla lu wallaay. lu yàlla def neex na leen daa daa dogu ba da caa da koo dogal ba noppi dogu ca. Mhm. loolu kenn du ko ca fekk. dëgg la boo bàyyee nag ba lam dogalu dogu ca nga tàllal ko say loxo mu may la. wallaay sëñ Tuubaa ku am tawhiid la te mas na bokkaale yàlla. déedéet déedéet wallaahi. ginnaaw géej gi nga xam ne dafa dem ñu tàbbal ko fa. Mhm. géej gi di duusu di tooyal ay yéreem di xotti ay taalifam. Mhm. la naan ayaa bahru waxit laa tusallis fa rabbuna taala ani hmm. taslis akrim bi rabba waaye kuy digal géej mu bañ a bokkale yàlla ñi ko eh. topp dana ma ta wax katabtu wa kulli faaraqa zanba wa sirka sëñ Tuubaa tàggoon ak bàkkaar ak bokkaale waaye 1918 boobu ñu tàmbali jumaa jooju hmm. lim digaloon mag ñi hmm. digale jumaay Tuubaa dane leen na ngeen mënal seen bopp bu ngeen mënalee seen bopp sañal seen bopp dee leen laaj nit ñi lu ñu man di ko def fu ñu xam te di ko sàkkoo fu leew dem leen ci àll bi fàggu ji lu lew mhm. di laaj ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett mhm. bu ngeen mënalee seen bopp sañal seen bopp mhm. bu ko defee bu ëllëgee ku leen manal dana leen sañal te ka leen di mënal ëllëg yàlla na fekk mu doon ka leen wala sañal loolu Sëñ Tuubaa jàngal na ko murit yëpp murit yi ñoo war a am fulla joo xam ne dañoo war a delloo siwaat maanaam njàngaleem Cheikh Mouhamadul Mountakha mii ga xam ne mooy borom yitte ju kawe ci wallaahi naal ab université di ci def trente-sept millions milliards di wax ne ku dem ma dem ku demul ma dem alaaji mbàkk yu fay ak Cheikh Bass ak Cheikh Mamadou Mountakha mm. taxaw nañ jumaa joo xam ne Afrique gisuma ju ko ci dàq noonu la murid dañ daan tonto ñoom daawuñu tontoo Serigne Touba amul morom daawuñ ko tontoo wax jëf rek waaye jëf kër sëñ Touba gii ay a ci dem andu takki wax jumaa yi ci biir dëkk bi fii ne ñetti téeméer ak nangam xaw ma juróomi téeméer léegi mu mat ko sëñ Abdoulahad Bousso Cerno mhm. waxoon na ma lim bi dama ciy bañ a juum mhm. waaye waxoon na ma ko waaye fa ma ko karmat mhm. laa fàtte te bëgguma cee juum waaye wér na ma ne xam naa ne weesu na ñetti téeméeri jumaa moom ci biir jumaa laa la wax de waxuma jàkka te loolu àndut ak coow université baa ngi nii margo bi waa Toscana ñoo ko fi tabaxoon lamp yaa ngi ne ràññi ci biir dëkk bi sëñ Tuubaa amul morom sëñ Tuubaa ko daan tontoo ci jëf waaye kenn du ko tontoo ci wax. te tontuwaat nañ ko fan yi jëfu Touba ci kanam gi jaayante gi nga xam ne dem na ci milliard ak genn wàll. xoolal loolu Touba ci kanam ku soxla woon ñetti téeméeri million ak juróom fukk. ci lu matul weer ñu jox la milliard ak genn wàll. sëñ Lam waxtu wi dem nañu yéen kàddu ngay tëjee. li may tëjee rawatina nag nii sëñ Mountakha wootee ak ni mujj di war a ñëw màggal see jëfewaale ndigal li fagu feguwaale itam ndax ndax ndax ndax xoddiku balaa ngay lakkale. li ma ci wax mooy ab murit mm-hmm. du boppam dëgg la ab murit aw fas la fas du jiitu saret maanaam saret du jiitu fas la saret du jiitu fas hmm. fasay jiitu saret hmm. ala kulli alin moom fasay ne ci kanam hmm. saret ne ci ginnaaw du tànnal boppam du digal ab sëriñam te da koy gëm ba noppi dëggal ca gëm ga sëriñ bi nag moom ginnaaw wax na ne nañ def lii bu kenn commentaire nan takk ay masque mm-hmm. nañ yor sel antiseptique yi di ko laal ci suñu loxo mm-hmm. te def mbooleem sabab yi te bàyyee suñ bopp suñ Tuubaa mm-hmm. ndax xam nañ ne sëriñ bi moom man na boppam man boppam koo xam ne xat dam damm loolu mën naa ko waat bu ko defee bu ñu fi jógee nag ñu delluwaat ci yitte te nangoo liggéey nag ndax nit bu liggéeyut du am jom du am ngor te léegi li ma gis ci sanes bi mhm. mooy def ci bëri ñoo xam ne nanguwuñu liggéey mhm. te liggéey dafa war as gor ndax boo liggéeyee ci ngay am loo mën a sarxee mhm. ci nga mën a demee màkka ci nga mën a dimbale ndax alal ji xam ne da tappale ba am ko koo ko joxit doo ci am yool mhm. yàlla dala ciy bindal ay duma waaye doo ci am tiyaaba mhm. li nga mën a joxe addiye ñu nangul la ko mhm. nga dem ci màkka ñu nangul la nga sarxe ko ñu nangul la ko loolu wetti aw ñaq képp ko mën a maye mbay maa ngi fi lépp loo xam ne y'a pas di son métier la yaa ngi ci adduna murid yi nañ góorgóorluwaat te xam ne sëñ Tuubaa ñi àndoon ak moom ñëpp dañoo amul métier kasbul alal la digle woon loolu la digle woon nañuy fàggulu leew man cee joxe addiye man cee yor suñ bopp man cee yor suñu njaboot te bañ ak doye di moytu ak doye te dox ci yitte Serigne Touba nee na lu ma am yitte moo ma ko may maa ngi jégglu ñëpp di baalu ak ñëpp eh, di leen jox tax ndaje ci beneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jëf jërëjëf jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ci kàddu yu am solo yi nga xam ni yëkkati nga ko muy yitte yitte moo may sëriñ bi lii mu am tey jii moom moo ko may dëkk bi fii mu toll tey jii moom moo ko may fii turam yegg tey jii moom moo ko may itam njabootam fii ñu yegg tey jii ci liggéey lépp yitte moo leen ko may yitte googu ba tey ji ni nga ko leeral sa biir kàddu moom moo may Serigne Mountakha fii mu tollu tey ji ba bu ni woon mujjit yëpp tey ji na ñëpp fanaan si Touba balaa jant bi so dëkk bi dana fees dell loolu yëpp kon yoon wi naka jëkk ci yitte la mës a tënku kon mbokk yi seen télévision Futurs Médias nii la fas yéene ànd ak yéen waajtaayu màggal gi yëpp nii la ko euh, président Youssou Ndour bëggee saa su nekk day wax naan tuubaa lu ngeen ca defoon daaw fexe leen ba mu yokk waaye bu ci dara wàññiku rawatina nag jamono jii ñu toll moo tax seen télé teel a ñëw toog ak Cheikh Mamadou Bachir àndandoog moom ñu diisoo ci liggéey bi ba lépp loo xam ni dana jëriñ nit ci yoon wi nga xam ni moom lañ fi sëriñ bi indil te mooy yoon wi fii sallallahu alayhi wa bàyyi woon ak lépp loo xam ni bés bi ëmb na ko ci ay njëriñ nit ñi mën ko jëriñoo bés la boo xam ne nag sunu borom moo ni ku sant mu dolli la sëñ Tuubaa woonu ci ñu santale ko yàlla kon yaakaar naa ni sëñ Muntaxa loolu la xam xelam mësta am xel ñaar naan lu toll noonu yàlla am lu toll noonu lu ëpp juróomi million daje ci bërëb ngir di sant lool du ko xañ sunu borom subhaanahu wa taala yool gi du ko xañ benn mbindeef waxin la kon ñi ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko groupe Futurs Médias yëpp sant leen gannaaw président Youssou Ndour sunu directeur yëpp rawatina Ndiaga Ndour mi directeur télévision bi sonn ci lool ci def ci ay yitte yu mat sëkk ba yii jataay yii mën a am sant équipe bi ñëw fii ñoom Ibrahima Cissé Eh, Ibrahima Diouf Ibou Diouf mi ngi jàkkaarloog man sëñ Talla Samb mi nekk fii sëñ Abdourahmane ci wàllu son bi maa ngi jàkkaarloog eh, sëñ Hamza Diallo Mouhamed Niang sama doomu baay tey ñu am ay gan yu mag yoo xam ni itam teewee nañ ko sëñ Bouchra Samb xam naa daa ngi gis beneen jataay ak moom waaye sëñ Mamour Mbaye itam sunu rakk di sunu xarit bu Touba TV moom it eh, bëgg loolu Cheikh Ibrahima Fall Lamp moom it teewlu na waxtaan yu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba subaam jàmm incha allah salaatu lazi fi kulli sahrin